combat bi. lu mu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat bi loolu ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tapha parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha Tine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la ko quoi. man li ma wax moom laa xam mu sama kopp Fodé te incha ci kàttanu yàlla dafay naan nga ni combat bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa warul sedd sama diggante ak moom. parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na suuf nga xam ne du sedd te fu ma maa ngi koy xaar pare naa ci lépp. te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko ne puusal day puus pour man. di leen jaajëfalaat bu baax ah, di am contentement janoog yéen nee naa leen mbégte lay am heure bu ma janoog yéen ngir a fas xibaaru làmb mhm. rek man ak Mbaye Babacar fekk la fa ne la jàpp suñu loxo dëgg la daal leen nuyu nuyu yi waaye a mooy toog fii di leen nuyu di te di ko sàkku ma fayee daal a fas xibaaru làmb Mbaye nuyu naa la nga xam ne heure boo ñëwee rek moom nga ñuy ndax ba seet samedi bu jotee nga def sa tubéy bu baax dem seeti Sidi Diop wala Waly Seck dégg naa yaa ngi woon ca Waly Seck nga bërki dem man la mañ mañ moom mu yóbbu mañ moo la yóbbu woon ca Waly Seck de la musique la woon yéen ñaar yéen a àndoon mi a noonu nuyu naa leen bu baax a baax yéen seetaan ah, Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam di ko sàkku ci yéen di leen wax juma mubarak yàlla nañu yàlla defal ajjuma jàmm di leen ñaanal ànd ak sama partenaire numéro un moom mu ñu may huile moom mu ñu may revue de presse bi chaque jour ah di huile j'adore. Mm-hmm. damay yàqal sax di wax tur bi. huile j'adore dafa xew nag huile j'adore dafa xew. gam boobu waañ boo dugg fekk ko fa xamal ne waañ boobu jaamur la paix sa jëkkër sa day wàcc rek ñibbisi parce que day xam ne li ko fekk ci kër ga. jigéen jigéen jeeg bu bëgg jeeg bu bëgg sa borom kër yokk sa ay point rek jàppanteel ak j'adore. mu ngi noonu indi leen pâte bi indi leen vermicelle j'adore macaroni j'adore. Mm-hmm. spaghetti j'adore kan moo ñëwaat tegu ci ki ci tegu mooy euh, au Kayar ku ne xam nga ne boo defee euh, spaghetti wala nga def macroni wala nga def vermicelle da nga war a teg ndax mu set sel neex loolu nag au Kayar kese laa ci wóolu ndox mi nga xamante ne bii sénégalais yépp moom lañ taamu ndax ferñeent ya nekk ca biir kon daal day mbàkke jàppal ne au Kayar mooy ndox mu ñuy aar ba tax na damay ne saraax ci xew-xewu làmb ah, journal suñu làmb comme xëyee ci xëtam mu njëkk muy Malal Ndiaye Malal ancien champion d'Afrique la la muy xëy di xam ne ci journal bi combat bay dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé di combat royal ba Ama Baldé su bëggee daan Modou Lo dafa war a encaisser coup ba encaisser coup Modou Lo na. ñëpp di laaj nag ndax xale bi loxo bi dafa xor te dafa gaaw booy encaisser coup bul jàpp ne benn coup ngay encaisser mën ngaa jël coup yu bari kon nag soo mënee moytu coup bi tamit. dara gënu ko malal yemul foofu. Euh, ndax nee na combat Balla Gaye ak ki nga xam ne moom mooy Bombardier moom li mu gis nee na Bombardier dafa war a bàyyee komba bi Balla Gaye ndax Balla Gaye mooy jël si revanche Bombardier amul lenn lu muy perdre ci boobule komba ndax moo ko daanoon te da ko fa war a bàyyee xale bi combat bi pression bi ci Bombardier la ëppee loolu mooy gis-gisam euh, comme ni nga ko waxee sànq ñëw na ci combat royal bi diggante Modou ak Ama Baldé nee na Modou Lo ñépp xam nañ ne bandi géew la dafa am sañ-sañ ci làmb dafa mën a bëree dafa mën a xeex kon kuy bëreek moom war ngaa paree ci côté yëpp wante ñëw na ci amaa balde nee na Ama Baldé fi papaam tegoon tànkam fu ko raw la bëgg a tegaat tànkam wante nee na Ama Baldé su bëggee daan Modou day fàtte jël bi ko Modou daanoon ci mbappat wante tamit bu mu indi fougue jeunesse bu mu ëpp na ñëw rek def ndànk jàkkaarloog adversaire def ndànk waaye kañ ne samp ko ne ko doo def ndànk nag mooy Moussa Ndoye naan ko contre le fils de Double Less ah. Moussa Ndoye deuxième victoire d'affilée deuxième défaite d'affilée cela lui est vraiment interdit Mbaye Babacar. nekkul li nga xamante ne bii mu ngi ci xelam jëlaat defet ci digganteem ak Sa Thiès nee na xalaatuma ko ndax waaye yaraax dan maa yónni yàkkamte ma fukki pénc ñaar yépp nag nekk ci gannaawam. yaakaar ko ba pare ñaanal ko nee na fi mu toll nii dara nekkul ci xelam lu dul jàkkaarloog Sa Thiès rek incha allah daan ko jël ndam bi yóbbuwaat ko foofu ci yarax wante Sa tamit bul fàtte na mbër la ma nga xamante ne bii ndaanaan kullu fadrin la dafa mën a bëree moom tamit te it bu ñëwee ci làmb li mu gëm rek lay def wante Sa Thiès ci journal bi mu ngi sensibiliser supporters yi ne leen non à la violence ñëw leen ndànk rek yëngal ci kaw ma yëngal ci suuf daan gan gi dem ñibbi loolu dina neex ba tax na Max Mbargane nag mu ngi xëy di àddu ca combat ba dox ci diggante Mame Balla ak ki nga xam te ne mooy Mbaye Gouy Gui lan ci xam ne journal bi ne combat boobu c'est l'expérience face à la jeunesse Mbaye Babacar expérience mooy gagné jeunesse loolu insha allah jouru ñëw na décortiquer ñu boobu les combat nee na daanaan la ci làmb daje nag daanaan yu bëri ci làmb daan leen kon nag amatul tàkkusaan buy rëy ci moom te it Mbaye Gouy war naa def ndànk ci moom bu baax a baax bi mu ñëwee ci Mbaye Gouy Gui nee na Mbaye Gouy xele la am na sañ-sañ ci làmb Euh, bu ñëwee ci làmb day osé am na gabarit tamit mbër am na bindu mbër mais war na def ndànk ci boobu boobule nga xamante ne bii moom mooy dox ci digganteem ak ki nga xam ne moom mooy Mame Balla ñu nar a gis combat bu neex diggante mbay guy gi ak Mame ndax ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk da ngaa yàkkamti sa adversaire ku ci nekk da ngaa xiif sa adversaire wante ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lañu ci làmb mbay guy gi ak Mame Balla mbay guy gi nag mooy xaritu Mansour Fall moo koy may ay yére dégg naa ca <laughs> noonu nag ginnaaw yàqu-yàqu te fi amoon ci arène national kii di Pape Abdou Fall mi jiite Pape production daal di cay addu mhm. wax ci yëkkati ay kaddu jëmale ko ci CNG ba mhm. di jàpp ne kaddu yooyu dafa déplacé ba tax na CNG daal di koy convoqué fekk seen locaux ya mhm. ba mu génne nag waxtaan nañ kii di promoteur ba nag di Pape Abdou Fall nee na waxtaan nañ on s'est exprimé on s'est compris maanaam waxtaan nañ ba jubóo ñoom ñaar ci ay kaddu ku ci nekk xam nga lam sa moroom bëggoon wax dañ koo woowoon doon ko auditionné wax nga ko gannaaw ba mu yëkkatee ay kàddu waaye nee na ba gannaaw ba ba ma toogee waxtaan ak ñoom dégg nan fi ma doon waxee nekkul ay kàddu ya nga xamante ne bii ay kàddu yu ŋàññi la wala ay kàddu yu yàq la wante lépp luy defar làmb rek laa ci jublu woon moo tax bi ma jàkkaarloo CNG waxtaan na ak ñoom boo déggoon nañ ci kawee kàddu mal entendre rek moo amoon sama diggante ak ñoom waaye lépp la ci loolu xam nga ko lépp leer naa leer na ndañ ñàkk ñàkk a déggoo amul ñàkk a waxtaan moo am mm, réeroo amul ñàkk waxtaan a am dégguma olof nag mbay da nga ma ciy jàppale def yaa ngi comprendre noonu baax Samba Fall nag devoir ses ambitions et ses combats ba nag dox ci diggante ki nga xam ne mooy Coly Faye ak général bu Fass mbay Babacar Samba Fall moo tëgg boobu le combat incha allah le 3 juillet la yaa mooy doon première journée mu nekk ñaari xele yi nga xamante ne bii nag ay espoir yi làmb lan wax naa la ko sànq ci biti avant ñuy commencé nee naa la combat bii combat jànq la combat du ko dàq ci combat yi ndax mën nañ cee gis bëri mën nañ cee gis xeex ci fàttali ki nga xamante ne bii moom mooy général bu Faas ki ci koli koli koli fay euh, mu ngi mujjee bëri mu ngi mu ngi mu ngi ki ko mujjee daan moom mooy euh, gàmmu géy wante mu ngi mujjee daan ki nga xamante ne bii moom mooy Ndandi Fall Ndandi Fall la mujjee daan le 6 juillet 2019 la woon wante général tamit dafa nekk xale bu pare nekk ci yoon nekk xale ba nga xamante ne bii téye kuddu du yomb moom nee na fi mu toll nii Fass liñ ko sas dafa diis te euh, ki nga xam ne moom mooy qualifié na xam ne am na combat bu rëy. am na combat beneen combat ba ñuy wax di ko ruumala di ko wax di ko di ko yëyi di ko yàbbee. Hmm. beneen combat jeune combat bu nar a am explosif. ndox hmm. ci diggante Tigre Junior ak Boy Jaxaaw. journal suñu lamb la mu tuddee combat bu ne combat bu c'est le duel des jeunes lu Mbaye Babacar. ah ay ndaanaan lan ay xale lañu waaye ba pare tamit li ma wax ci mbay guy gi moo nekk ci ñoom. am nañ bindu mbar am nañ taxawaayu mbar incha allah booy jaxaaw ndaanaan la ci làmb ji ku ne xam na ne euh, dafa jógee ci li nga xam ne moom mooy euh, victoire. booy jaxaaw nekk ndaanaan euh, adversaire am bi mu war a jàkkaarloo nag dikk ki nga xam ne moom mooy tigre bu caaro yi nee naa la. yeewoo caaro yi rek la neexee nga ne man champion laa mbër laa ndax caaro yi dëkk la ba nga xamante ne bi dañoo xam làmb mën làmb te it euh, di ko dund Tigre nee na ko li ma liggéey lépp incha allah jour làmb ja nga koy xam te lijjantuwuma li nga mën ak li nga mënul su ma ñëwee li mu nekk ci man rek laay def làmb ji jeex li mu liggéey lay wax waaye ñun li ñuy xaar la ñuy wax ginnaaw ba Pape Thialis Faye jiitale Leewtoo production daal di woote ndaje ah face to face wax TFM hmm. le 27 bii di dimanche dox le géant du Baol ak ki nga xam te ne bii mooy borom booy ñaar nit ñi di ko di di di laaj di am du xel ñaar lañ koy xel ñaara. naan ndax booy ñaar dina ñëw wala du ñëw. Mhm. kii di Tafa Kanji nag moo ngay dalal seen xel nee na incha allah booy ñaar numéro 2 sera présent. ci fàttali Tafa Kanji moom mooy ki nga xamante ne bii mooy ànd ak euh, booy ñaar. nekk préparateur mystique am. nekk ka nga xam ne fu ñu gis booy ñaa gis ko yaakaar naa boobu seen silfu boobu mu ñu doon def mu naan mu naan booy ñaa asin mu ngi noonu moom moo ko doon def kooku mooy Tafa Kandji nee na euh, na na amateur yi ak promoteur bi dalal xelam incha allah Boy Niang dana ñëw wante loo ci mën di dégg face to la ba nga xam ne ñoom ñaar bu ñu toogee di nga gis lu garaaw. ndax sànnantey kàddu yi man seeti naa booy Niang seeti naa Tapha Tine ñoom ñaar heure bu ñu jàkkaarloo ku ci nekk wax jox sa morom di nga gis face to face bu neex. ku nekk am nga loo góob loo jox sa morom. ba léegi jàkkaarloo ku rek kii wax di mi ngi noonu. nañ koy xaaral ayca ah, ba léegi mën nañu des nag ci euh, suñu làmb ndax Gambien war na bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy assurance waaw. Gambien war na bëre ak assurance mu nekk combat ba nga xamante ne bii tamit komba boobu Gambien gëj nañ ko gis. gëj nañ ko gis trop ba mu gëjee ci làmb ji xaw na def ay at. war a ñëw nag wanewaat boppam war a wanewaat lu bees assurance moom nee na ki war a remplacer ki nga xam ne moom mooy Bombardier am nga sas bu rëy ku ne xam na ne paka la. am na combat ak Forza muy combat bu metti ñun waa Mbour lu sas wu rëy nag nekk suñu diggante kon nee na Gambien ndax xam ne ki muy bëreel dafa xiif te dafa pare incha allah combat boobu ñu nar a gis combat bu neex la le 27 la war a am fële ci stade municipal bu Mbour Sidi jaxate moo ko tëgg. Diakhaté Kaba ah. Mm, waaw ba léegi ah, dañuy desante ak journal record ah présentation du drapeau au parrain démb combat bi dox ci diggante Gris 2 ak Abdou Diouf nag ah ma nga noonu couleur ya mën na ne annoncé nañu ko guerre des moo ba commencé na ñoom ñaar kenn mayul sa morom dara ca face to face ba mm. ku ci nekk wax nga ba sam ñeex saf géej mm-hmm. ca face to face ba wante nag euh, làmb loolu moo koy jaay événement face to face moo koy jaay wala open press moo tax promoteurs yi dañuy bëgg mbër yi di ko respecté di ñëw ci face to face yi wala open press yi ñuy toog di waxtaan ak presse bi mi ngi noonu ñu Abdou Diouf Abdou Diouf ku ne xam ne ne moo mujjee daan moom moom moo daanoon Gris Bordeaux numéro 1 Euh, kon nag bu waree jàkkaarloo ko Maodo ñu naan ko Gris 2 combat bu nar a neex la Maodo nee na ko yaa daan doon grand bi mais sama yoon nekkul ci loolu su ma jàkkaarloo ak yow li ma war a def laay def ci defat laa jógee sama diggante ak Reug Reug fàtte naa loolu li nekk sama kanam mooy jàkkaarloog njoolu waalo bi defal ko bagage. mu mel ni ba mu mag yeeg léegi am na 11 ans mu war a bëri raq ji dinañ xool lan la wane di mu jëg gëtam. Mhm. Mansour Fall defal lu ba léegi nag journal record dañuy desandi ah. Mhm. Reug Reug nga xam ne nii. xale bu MMA ba xale hmm. xale bu caaroy ba mu ngay écarté rek doomu Parcelles ba mu ngi koy écarté ci chemin nee na wax yi naan sama combat ak Franc lu la moom d'accord loolu hmm. nee na ñi wax loolu ñépp xamuñu làmb xam nga xam nga rëg-rëg nag ay waxam day metti nee na ñi wax ne damaa war a bëre ak Franc yépp ñi wax loolu xamuñu làmb ndax Franc fi mu toll nii bokkuñu li nga xamante ne bii moom mooy yoon te dabaguma ci làmb gannaaw ba mu nekkee États-Unis la yëkkati yooyu la kàddu wante wax na ci digganteem ak guy gi nee na guy gi incha allah pare naa ci côté yëpp te poids bi ma yor nii du ma ci yokk du ma ci yokk genn wàll libre nee na poids bi mu yor nii moom lay maintenir incha allah te deux séances lay def par par jour te incha allah mois de juillet bii ci bii di ñëw bëgg naa ñëw fii ci Sénégal nag toog waajal combat bu baax a baax dugg ci dugg ci paa yi wuti ay ah. butéel ndax ci làmb ji la bokk. mu ngi noonu ah, dama koy jaajëfal bu baax moom Mbaye Babacar loolu moo nekk li gën a fësan ci xibaaru la mbay looy tàggatoo bi xanaa euh, jaajëfal ñëpp ñaanal leen jàmm ak salaam di leen dig daje incha bu ci yàlla àndee suba euh, di jaajëfal nag suñu caméraman bi Mansour Fall le benjamin de caméraman xale bi nga xamante ne bii soo àndeek moom ci làmb da ngay sawar bërigo ci mbartal la teg sa loxo mu dem tegul sa loxo mu dem noo ko waxee sànq taal bu yàlla taal la sànn sa moo moo ci gën tànn sa ah. matt fay ko mi ngi noonu kooku mooy séeréer maam jaara Bousso borom xaan yàlla na jàmmam yàgg Mansour Fall la benjamin de cameraman sama njool mu ndaw mi nee naa la nag njool mu ndaw yombut maam jaara li nga am jafe na. déedéet te kooku sa fukki loxo si rek. gars yi dañ koy ala faalen bi damaa gëm faalen ni de ak Cheikh Fall. yàlla maa ma bëgg mañ pour ah, sama rak boobu bi sama lunkoo bi di kontaan ci moom baax xale bu baax nga. yaru nga tey nga maanu nga ku la bëgg na la bëgg a sa jikko ku la bañ nit bañ la ak sa jikko waaye nit gënu la ah noonu laay def bëgg ci yow bu baax la ñaanal jàmm ju bare ba dañ gis nii chaque jour di la gis xale bi ngay yéeg ci kaw di yéeg yéegal ah mm. noonu laay def dama sama ginnaaw mañ ba ëllëga ah noonu laay def daal di béggee fama ah, sama caméra woman di kontaan moom bu baax a baax bamba moo papa damay bëgg ci yow dama di ñaanal jàmm yéen waa internet yi di leen ko sàkku ci yéen ba ëllëg incha allah ci Leewtoo TV combat bi. lu mu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat bi loolu ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tafatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tafatine moo dajeek ñoom fi ma ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la ko quoi. man li ma wax moom laa xam moom sama kopp xool de te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax. parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na souffle nga xam ne du sedd te fu ma woo maa ngi koy xaar pare naa ci lépp. te maa ngi liggéey loo xam ne ni man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man.